سوى دوري وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فديتني بذي الكبار والكسل وجدت لي ملك بما بي غزل kilifa yi waaye it ku ne xam na taxawaayu seen kilifa gii nga xam ne mooy Cheikh Ahmadul Fadel nga xam ne am na relation bu dëgër a dëgër ak jàngkat yi rawatina ñi jaar Maroc képp ku jaar Maroc yaakaar naa xam nga sëriñ Mouhamadul Fadel mii xam nga ko ci ay jëfam xam nga ko ci ni daan dimbalee jàngkat yi waaye xam nga ko it ci ni njaboote woon ñëpp damay wax ne ku mel ne man xëy na fekkante wut ak Maroc lu yàgg waaye defal na ma fa joo xam ne ba tey maa ngi moom mus ñoo joxante loxo ndax bi ma fay ñëw booba lay waaj a ñibbisi fii ci Sénégal waaye booba am na bu ma soxla woon boo xam ne lu cher lay jar kenn ci ak njabootam laa ko yóbbante rek mu xamal ko ne ko kooku de mag waajuram ay xarit lañ woon daan ma ko jëndal te téere bu doon jar lu cher ca jamono jooja bu doon man rek xëy na du ma ko mën a sama bopp kon loolu dafay wane mbaax gu sax ci jëmm dafay wane it bëgg xam-xam goo xam ne jële nañ ko ci seeni waajur waaye dafay wane it yemale ñëpp ci xam-xam rawat na koo xam ne nag suñu borom da leen a boole yeneen ak yeneen da leen a boole aw yoon boole leen ak mbokk kon daal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci turu raw daayiratu Rawdu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay waaye di nangoo dal bu baax a baax ci dal bu tedd bi ndax yaakaar naa képp koo xam ne da ngay xeeñtu xam-xam wala ngay gës ku la dalal ci laytaayu xam-xam laytaayu gës foog naa ne sa njariñ rek nga fay fekk tey lu lay bégloo lay doon looy kontaan lay doon kon ñi ngi nangu dal bi bu baax a baax a baax di rafetlu kàddu yi fi njëkk a jib rawatina kàddu suñu xarit Cheikh Mouhamadou mukhtar ci ab yaatam yu neex yu am solo yooyu tey ñi ngi ñëw ànd ak daayira bi yëpp waaye nag jël kàddu gi nga xam ne mooy fi war a jib jox ko kenn ci membre bi di kenn koo xam ne boroom xam-xam la di doomi soxna di ko ñu xam it ci wàll gii muy tusaare xam-xam ak ci di ko dundal muy Cheikh Ahmad Mbacke mi nga xam ne moom laa dendal mu Cheikh Mamadou murtada mu Serigne Cheikh Fat Fall mu borom daaru yaakaar naa Serigne Ahmad kenn du ko présenté ci jamono ci jamono ji rawati na ci jotaay yu mel yàgg nañ ko gis yàgg nañ koo diglu ci muy wax wax ju am njariñ goo xam ne dana soxal lislaam gi waaye dana soxal murit gi tey incha allah nag tom bi nga xam ne moom la war a dikke ak ñun di tomb bu jamono laaj di tomb bu am solo di tom boo xam ne ñëw na ci barabam waaye ñëw na ci jamonoom te mooy muwaasafaatul muridi saadiq fi taalimi cheikh al xadim loolu mooy melow meloy murit saadiq ci ni ko sëriñ Touba jàngale incha allah ci biir waxtaan wi dana doore ci fàttali lislaam mooy lan ak liimaan ak lixsaan muy rek yi nga xam ne moo taw di diine ji mooy ponki diine mooy seeni ponk yu mag yu mag boo waxee ci ñett yooyu dana wax tasawuf wala lixsaan ban wàccuwaay la ci am waaye tariqa ban wàccuwaay la am ci wàllu googu bu noppé nak dana wacc mbartal ñew ci deug deug suñu yoonu mourid bi wan way la am ci loli ci ponk yooyu waye mourid bi moy kan ak it mourid bu dëggal leen yan ci ay melokan ak mandar ga lañ koy mëna xamé xamna kon duma guddal euh, kaddu gi fofu damay jox serigne ahmad rek kaddu gi di ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak taysir ubbi awla miñam leral ko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 واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبكي جلدي مبكي تالي ما ماغي لين دي نوي زياره دي جيتال زياره بي ام نيو بي sëriñ ahmadu al badawi moom cheikh mouhamadul fadil di jaare ci moom di siyaar mbooleem rawdu rayaaxin gépp ak boroom xam-xam yu baax yu sell yi fi daje yépp waaye di siyaar itam kilifa bërëb bi di suñu waajur di cheikh mouhamadul fadil mi nga xam ne man dama bok ci ak njabotam ndax digganteem ak sunu wajur wa ñu donon ben ak serigne Modou gey mi nga xamne ma ngi koy seen léegi ma len di dogal ngant xeyna kaddu gi ak jotaay bi yep da am ci seen digal ginaaw lol nak no ngi len di ndokkeel di len siyaara ci wéru sel wi nga xamne moy wéru safar di weer woo xam ni bari na yu ci daje bari na liggéey yu mag yuñ ci tàmbali yàlla def ca barke xam ngeen ne ci safar ci la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jóge woon makka gàddaay jëm madinal munawwara ci weeru safarit ci la sëriñ bu mag bi tàmbali woon tukkeem boobee ci lañ ko tàmbalil nattu ya muy safarul khuruj waye tay gi itam ci la amé won muy safarul kharaj xam ngeen ne xex bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam xex ci diine ci wéru safar lako lako lako tàmbale won lako défé won muy ghazwatul abwa wala ghazwatul waddaan ci la jële won itam soxna khadija bint khuwaylid soxna ñu am ci soxna fatima ci wéru safar ci lako sayyidna ali jële won njabootug rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne ñooy leerug suuf si itam gu barkeel goog yi ci ñooñee la meññ ko lañ lañ lañ moo leen meññ waaye ci la wéradig rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itam tàmbali ci weeru safara kon weer la bu bari ay xew-xew bu bari ay mbir yoo xam ni yuñ ci tàmbali la ak ay coona léeg-léeg ak ay jafe-jafe ndax gis ngeen ne al ashhurul xurum ci lay jeex ci jamono yu njëkk yi xeex yi da daa tàmbalee ci weer wi bu ko dee moo tax ñenn ñi sax daa ko gaafal waaye weer wu am solo la boo xam ne noo ngi leen ci ndokkeel rawatina noonu murid yi muy sunu weeru bopp di weeru màggal Tuubaa ginnaaw loolu nu xam le ne waxtaan wi danañu waxtaane taw muwaasafaat muwaasafaatu al muridi saadiq fi taalimi cheikh al xadim waaye njëkk ñuy dugg ci melo yi yi nga xam ne moom la murid bi war a làmboo tax ko ngir mu mën a nekk al muridu saadiq ba sëriñ Tuubaa doon euh, yar doon ca woote jëm ngir nga mën a bokk ca ñooñee am na melo yoo xam ne mënta ñàkk ci yow am na yoon woo xam ne mënoo caa ñàkk a jaar am na ndigal yoo xam ne faaw nga jëfe ko waaye njëkk loolu dañuy wax ne ak murit ci biir tasawuf lay lay tàbbi tasawuf ci biir diine ji lay tàbbi diine ji itam ku ne xam na ne jenn diine ji la sunu borom tabaraka wa bi mu wàccee mbindeef yi ak doomu aadama yi ci kaw suuf dafa am lu mu warloon teg ñoom wax na leen ne waxtu wu ne dinaa leen indil samak njub topp doo réer doo texee di ku ko topp doo am lenn looy ragal mbaa tiit fa imma yaatiyannakum minni hudan fa man tabica hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna waxaat feneen ne fa man ittabaca hudaaya fala yadillu wala yashqa kon njub goog yi nga xam ne suñu borom waraloonte naag mbindeef yi ne faw dina leen koy wàcceel ci kaw suuf ngir ñu jaar ca yoonu njub woow yi mooy li doomu aadama yi xeeñtu mooy li sëriñ si xeeñtu mooy li gaa yu baax yi xeex xeeñtu mooy la yërënte ya doon jàngale itam njub googu yi mooy diine lislaam di jenn diine joo xam ni yonente yi fi jaar yépp ci lañ doon woote jëm sunu borom moo tuddee ñi ko gëm al muslimina huwa sammaakumul muslimin من قبل يونت يفي جيتو يفي جيتو ري سيدنا نوح عليه السلام من نيك يبال تي او خيت غير مو ولن جيمي تي نجوب غوغ دا فا ان اكون من المسلمين سيدنا ابراهيم عليه السلام اك دومم جا اسماعيل باني نيان دانيو نيان سون بوروم ربنا وجعلنا مسلمين لك sayiduna ibrahim ak sayiduna yaquba ñoom ñëpp ku ci ne ba ngay dénk sa njaboot danga leen a dénk ne falaa tamuutunna illa wa antum muslimuuna sayiduna yuusufa gis nañ ko muy ñaan tawaffani musliman wa alxiqni bi saalixiina sayiduna muusa noonu alayhi salaam wax na ne yaa qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum kon lislaam jooji mooy jenn diine inna diine inda lislaam mooy diine ji sunu borom jàppe diine yonente yépp daa ci woote jëm mooy njubug sunu borom gi tabaraka wa taala nga xam ne ñu baax ñépp ci lañ mas di ne yonente bi daana wax ne al anbiyaau ixwatun li allaat ummahatuhum shatta ودينهم واحد كون دين جي جن لا مسا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يعني كوتا جارو جارغا تي يونو سانكو كوتا جار نك جارغا تي يونو نجوب تي فاو ديغا اغ تي نغرمول سونو بوروم تبارك وتعالى مو ييخ اك مو غاو دين جوجي نك بون خول من نيو واخ نيتي خاج لا تي لولو سيدنا جبريل عليه السلام موما سا نيو تي يونت بي صلى الله عليه وسلم امي ميرو دوما ادمه نيو ملني كوي جانغ في كانم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاج كو نيتي لاج با نينت ما الايمان ما الاسلام ما الاحسان بكو رسول الله صلى الله عليه وسلم تونتو بنوبي mu génn dem yonente bi ne dabal leen ma ko ba ñu génnee gisuñu ko mu ne leen haada jibrilu jaa yuallimu naasa diinahum dafa ñëwoon doon jàngal nit ñi doon leen xamal seen diine ci la borom xam-xam yi tënk ne kon diine ji ñetti xaaj yooyu rek la iman islaam ihsaan laaj na ko beneen laaj muy mata saa boo xam ni borom xam-xam yi ballooloo nañ ci yeneen i xam-xam yoo xam ni jàppe nañ ko xaajub ñeenteel waaye li ñu soxal mooy ñetti xaaj yi kon diine ji am na wàll goo xam ne wàllu ngëm la moom la sëriñ bi waxoon ne aqsaamu diini rabbina al imaanu wa baadahu al islaamu wal ixsaanu am na wàll goo xam ni wàllu ngëm la mooy gëm ne yàlla am na ak la ca aju lépp gëm ne malaay gëm malaayka yi gëm yonante yi gëm téere yañ wàcce woon ca ñoom gëm bis ci gëm ab dogal yoyu ak mbollem li ci aju ci xam-xam muy lu yaato yaatu amna borom xam-xam yu ko wo ñu tudde len ulama ut tawhid mom la sëñ bi tënkoon ci tasawudu shubban waxone imanukum an tu'minu billahi wa bil malaikati jundillahi wa bi jami'i kutubihi al munazzala wa yawmihi yowmihi alaxiri yowmi zalzala wa bi jami'i rusulihi wa bil qadar min khayrihi wa sharrihi haythu chadara waaye am na beneen xaaj nag boo xam ni ci diine ji moom lañuy wax al islaam moom la ko jibril laaj islaam nag mooy wet gi nga xam ne mooy jàngale jaamu yàlla yi cër yi def ak jëflante bi dox ci diggante nit ñi ak mboolem lu aju ci jaamu rek xaaj bi koy jàngale xaj bu rëy la bu yaatu bu bari ay fànni xam-xam yu ci ne ñakoy jàngale nak ñom lañu tuddé al fuqaha mom la sëñ bo xamné islamukum dhikrul ilahi was sala was sawm wal hajj kadhalika zakka ñettelu xaj bi nak moy ihsan rasulullahi bi ko ko jibril laaje da ko wax ne ko an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak muy xaaj boo xam ni mooy jàngale mbiri xol yi jëfi xol yi yég yëgi xol yi doxub xol bi ak maqaamaat yi ndax ci misaal nga xam ne dëddu lu baax la ak nga dëddu ñaar yooyu bokkuñu nga xam ne toroxlu lu baax la ak nga toroxlu ñaar yooyu bokkuñu loolu lañuy ñuy ay maqaamaat ak axwaal yooyu ak xeeti xam-xam ulum wax bi yoo xam ni am na ñu ko jagoo di ko gëstu tësil ko delloo ko ci alquran ak sunna si bi xam-xam boobu ña koy jàng ak a jàngalante ñoom lañu tudde as-suufiya sëriñ bi gàttal na ko wax ne isla ihsaanukum an taabudu dal minani ka annakum tarawnahu bil ayuni in lam takunu qad raaytumuhu faqad raakumu faraqibuhu tasawuf boobu yi nag maanaam sëriñ bi iman da koo firee dafa wax ne xam-xamu tawhid mo koy jàngale islam xam-xamu fiqh mo koy jàngale ihsan xam-xamu tasawuf mo koy jàngale fa awwalun yasihhu bit tawhid wa thani bit tafaqquh al lxamidi wa sihhatu thalith bit tasawuf fal jam'u wajibun bila tawaqquf kon ñet yoyu iman islam ihsan moy tawhid fiqh tasawuf muy ay xam-xam tasawuf nak muy al ihsan buñu setlo mbolem li ci rot ci qur'an ak sunna day melni génnut yatt ñatt yi moy digënté jaam bi ak boromam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak jaamu yàlla ci ñaari maqam yi yoonte bi junju fofu moy maqamul muraqaba ak maqamul mushahada xamne yalla mi ngi lay gis di gis sa lepp sa dara ump ko nga war ko bayyi xel lolou moy muraqaba dem nak ba yow nak ngay gis ak di jallok maguk sun borom gi tabaraka wa taala lolou lañu tudde mushahada lolou moy genn wetuk ihsan di genn wetuk tasawuf geneen wetuk ñaaral gi moy gi dox sa ak nit ñi ak minde fi la ci jitu moy say waajur wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa walidayni ihsanan ihsan day dugg fofu day dugun ni ngay doxé ak ni ngay ak say wajur ñi say ñaalé jirim yi miskin yi julit ñëpp ñi nga ci bokkal ay déggin nak ñi nga ci bokkul ay déggin ak mindeef yépp sax lolu jëflanté bobit ihsan da koy da cay dugg da koy lijeenti da koy jàngalé itam ihsan batay day jàngalé li ngay jëf li ngay liggéey gang ko wara rafetal gang ko wara rafetal sellal gang ko wara def gi nga war a def ngir yàlla loolu it da koy jàngale yii nag bu àndee moo lay jox jullit boo xam ni bu sotti lay doon bu mat ci jikko ak ci meloom ak ci jëflanteem ci biir société bi idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nga xam ne boobu da koy jëfandikoo ci lépp digganteem ak boroomam dara du ca wàññiku waaye digganteem ak nit ñi itam day doon yërmaane ci biir nit ñi don jàmm ci bir nit ñi don ñariñ ci bir nit ñi te du ci xol ku jégué ak ku sori ki wala ké limi jëfit léppay sel ndax yoonte bi waxon na ne inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina benen hadith ba wax ne inna allaha kataba al ihsaana ala kulli shay ihsan day dugg ci lépp fofu nak jam bo xamni nak doxna ba meuna dundu deug deug ihsan ihsaan kooku mooy yeyoog mooy yeyoo cofeelug suñ borom inna allaha yuhibbu almuhsinina wallahu yuhibbu almuhsinina mooy yeyoo itam suñ borom defal ko teraangay maaya xaasa inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muhsinuuna te li muy jëf lépp it suñ borom terale ko nangul ko ko seppil ko sikk yi sellalal ko ko ba mu yelloog jëmm mu nangu ko inna allaha la yudiicu ajra almuhsinina boole koog nag yeneen bushrayaat yoo xam ni ñakkuy koy dund rek ñoo ko mën a xam mooy wa bushra lil muhsinina loolu moo leen di moo leen di yóbbu ci ñu jegeenteeg ambiyaaw yi ak mursaloon yi salaamun ala ibrahima kadalika najzi l muhsinina salaamun ala ali yasina inna kadalika najzi l muhsinina kon loolu dañuy dégg ne l'islaam du jenn du benn tolluwaay du menn mbirit ay tolluwaay la yu wuute nit ki buy door a jóg mën naa nekk ab jullit nekk ab muslim waaye du nekk gun ab mu'min man ngay julli di woor di def lépp ndax danga nga caa juddu gi say waajur di ko def waaye dëgg-dëgg ngëm duggagul sa xol jëmmi dox wuti yàlla subhanahu wa nga xam ne murid bi yitteem mooy dox wuti ngërëmul yàlla idil muridu laa yuridu abadan gayra rida rahmaani dox boobu yi nag dafa am ay yoon yoo xam ne ñoo ko yittewoo maanaam tasawuf moo koy jàngale ci biir diine ji waaye ci biir tasawuf nag dafa am ay turuq yoo xam ni ña ko jiite rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo leen jox ndigalu tërbiya ak jàpp ci loxoy jaam yi yóbbu leen ci suñ boroom ci biir turuq yooyu nag suñ borom taw feexal nu ci tariqa boo xam ni ni ma ko waxee sanad bu gàtt la am gën a gàttali sanat ci kaw suuf waaye itam di jaami a bu boole masharib yëpp ak usuli turuq yëpp di tarixa boo xam ni dafa boole diggante jaamu yàlla ak dëddu ak dund gu ñangas ànd ak nag sukuru ak farax ku ne xam ne loolu ay masharib la ci biir tasawuf waaye di tariqa xam-xam itam sëñ bi waxoon ne inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa di tarixa bu bari ay ngëneel te barkeel te ki ci ne bari ay tawféex yu ko ciy dikkal bokk na ci li sun sëriñ bi wax ne suñu borom defal na ko ku ànd ak moom li gën a kawe ci li ngay yaakaar ci suñu borom danga nga ca jot faaza muridun laada bi bi maa ما ظنه بالله جاري الرفيق موتاخ نكون مو متا خم مريد بي موي كان سيرن بي خمال نانو لان موي اك مريد واخنا ن مريد عباره عن قصر اراده المريد على اراده الحق جل وعز دون الالتفات الى غيره من سائر الاغيار موي سا بغ بغ nga seeyal ko ci biir bëggug suñu borom tabaaraka wa taala loolu moo di murit am na feneen fu mu wax ne sa bëgg-bëgg na doon def xaqi waxtu wi nga toll waxtu wu ne am na xaq am na lum laaj nga fexe ba def ko ca loolee da ko way sax wax ne mu xaqiqatul di man yanqalib bi xukmi bi xukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan fa na daaka yamnau min islaahi ma hunaaka am na fuñ ko laajee moom sëriñ bi mu ngi ci majmoo ab sëñ bi gàttalu ak murit mu wax ne ak murit bu xasee amub sëriñ day topp ndigal te du diingat ci kaw mbaa ci suuf day rafet njortu itam ci lépp day def ndigal yiñ koy digalit da koy jëfe kem kattanam di moytu tere yi kem kattanam ànd ak nag di sàmm teggin ci lu fés ak ci lu nëbb ci bàyyi lépp lu amul njariñ ak di jëf ak a wax aw yiw te di ko yéene itam am na feneen fu ko melale iraada mooy dafa xam ne xaddul iraadati bi qawli saada tarkul muridi ma alayhi al aada summa rujuuhu ila al mu'taadi mooy murid bi dootu am aada aaday boppam ak doxaliinu boppam yépp da ko teg fële ñëw nag ci doxaliin ak bëggug sunu borom tabaraka wa taala murid bi itam sëriñ bi wax melal nanu ko wax ne wasful muridi tarkuhul iraada li wajhi man yafalu ma araada man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu boo demee ba bëggoo lenn amoo jenn yitte ju may jëmmi suñu borom tabaraka wa taala moo la ñor ci lépp moom ngay dàkk di dàkk ngërëmam ci lépp yow boo murit nga waaye li fekk nag yaa ngi am geneenu bëgg dese nga takunu muridan summa fiika iradatun fa in lam turid shay'an fa anta muridu murid itam mel na ne waxtu wi tënk nanu waaye xeeti murid yi bari nañ sunu borom bokk na ci turam al murid ko ne xam na ko wax na ci alxuraan ne inna rabbaka faalun lima yurid rasulullah itam dees na ko melal ci ak ab murid suñu borom melal na ko in araada nabiyu ci alxuraan gis nga ko turiidu loolu gis nga ko ci alxuraan wala taadu aynaaka anhum turiidu sëriñ bi itam melal na boom ci ne ab murid la yaa xayra man rabba muridan laa yurid siwaaka yaa faala kulli ma yurid kon murid dañoo bari te wute noonu la tolluwaayu murid itam wute am na murid yoo xam ne itam murid yi ci des nga xam ne bokkuñoo ñii ma tudd seeni seenu murid daa wuute am na ñoo xam ne yàlla rek moo leen ñor la suñu borom waxoon soxna yonente ba ne leen in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara laaxira mooy ñoo xam ne yàlla leen ñor akub yonenteem ak lu jëm ëllëg alaaxira waaw am na ñoo xam ne adduna moo leen ñor minkum ma yuridu dunya wa minkum ma yuridu laaxira waaye suñu borom nag ñim gërëm seenu murit mooy ñi nga xam ne yàlla rek moo leen doon ñoom mooy yuriduuna wajhahu dalika xayrun lilladina yuriduuna wajha allaahi wa ulaika humul muflixuuna sëriñ bi nag dara wax ne suubu yoonu murit mu yoonu gaa yu baax ya lu am solo la waaye bala nga koo def am na yoo xam ne war nga koo njëkk a lijjanti mooy na nga nekk ab jullit bu gëm yàlla di rafetal njullit gi dooga nag wutib sëriñ kun mu'minan wa musliman wa muhsinan in rumta sayran lil ilahi tahsuna amna fenen fu wax ne li jëkk war moy wutal xam-xami pas-pas xam-xamu tawhid nang ko wut ba am ko ba xam kan moy sunu borom tabarak wa taala ak lim mom ak lim yello ba saa yoo ba suubu yalay feñu bu do ko daru suxbata kulli fasiqi ko gis itam mudi ab na ma yàlla maa ci kaddu gi ab liñu ab say say ko xamni tay day ñemmeerlu suñu borom ci ci di ko moy kooku it nee na duub sëriñ na ko fa ne ñukk waxtabir rijaala qabla suxba wala tusaaxib xumuran aw daa ba ku bëgg adduna mbaa ko xel ma neexut yooyu bu ànd ak ñoom ñi ngay àndal sëñ bi nee na mooy man talabal wusuula lil jalili falyactasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutian laa yamiil fi dahirin wa batin an sabil na nga ñëkk a ngoy ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bu la dara teqaleeg moom waaye ka ngay àndale na nekk kuy topp yàlla ku ca ngoy itam mu kammilin yaqfur rasul waxu naa ko léegi koo xam ni daa mat te mën a matale ba noppi nag teg tànkam fakk rasul la sallallahu alayhi tegoon wax na sëñ bi wax na kooki naka la la war a xëccee nan la nan la war a wommate yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada dalay womat ci xam-xam ak ci jaamu yàlla di ci teete di la bàyyiloo aada yi ak lii sa bakkan bëggoon yóbbu la ci bëggug suñu borom tabaraka wa taala te it na nekk ab laabirekat faslu ko ala yaday murabbin naasixi na nekk itam ku amuk càll la maanaam bul jokk ci ku jokkuwul ku jokk ci sëñ bi càll ku dem ba ca rasulullahi mun ci ñàkk ci yoon wi fa man bi fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal jëmmi jaayanteeg ànd akub sëriñ ak yooyu yëpp nag alxuraan a ko jàngale ak sunu si yonte bi indi woon naa ci addil ay mbir yu bari waaye dama koy weesu sëriñ boobu it am na noo war a ànd moom ci ay teggin te waroo gaaw a beru yooyu yëpp sëriñ bi wax na ko wax na ne fa kullu man qabla wusulihi i'tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaxuudu fi bahri rada wala yaji'u minhu shay'un abada bul gaaw a beru bul gaaw jàpp ne mat nga dara bul jàpp sax na yow aslan doon nga dara moom waaye nag sëñ bi wax ne itam ki ngay àndal it bul ko topp mukk ci mooy yàlla wa bil maasi la tuti maxluqa sëriñ bi itam am na fu la war a jaarale mooy jéem laa tàggat ci nga jihaad ak sa bakkan ndax sëriñ bi sëriñ mag bi dafa wax ne nit ki mënta àgg ci ngërëmul yàlla te bakkanam nooyut faw nga nooyal sa bakkan jihaad ak moom bu wér génn ci moom sikk yi dugal ci moom mbooleem yiñ taamu ndax dafa am yuy buuf ci xol li alxuraan di tuddee baatinul ismi وذروا ظاهر الاسم وباطنه باطن الاسم mooy lu mel ne rëy naw jëf waru yëg sa bopp nay ak mer ak ngistal ak kiñaan ak coxor ak yi ni demee yooyu lu mat a génne ci xol bi la sëñ bi mooy mooy lijjante yow ba génne ko li muy def ci yow nag mooy dëggu ak ngëm gu dëgër ak yaqiin ak dëggu ak sellal ak wakirlu suñ borom ak bëgg suñ borom ak gërëm ko ci lépp ak ragal ko ak di jëfandikoo xalaat ak di yaakaar suñ borom tabaaraka daal ak muñ ak yinu deme loolu moom la ñuy wax taxliya mooy jiitu taxal lii topp ci tajal lii nag doog a ñëw tajal lii mooy leerug suñu borom doog a mën a wat ci sa xol leerug ngëm aw man kaana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin Nas. serign bi waxna bakkan ni mu doy war nga xamne day baña top yalla jël ben gi soko ca ga mu fexé ba indi ci ay rax mu rax ci mbi ay mbir loolu bo fexé ba sepp ko ci mu sóob la ci bëgg la nawlo sa bop ak yiglo la sa bop yoy yep nak yu mata xam la serign bi gatt na ko ci wax ne bakkan boko bëgge bëggee tàgg man danga koy sëf lu ko ëpp ci ay jaamu yàlla xañ ko itam ay bànneexam te dimbali ko nag suñu borom ndax bu dee yàgg bakkan bi rek mu nërmel la moom am na ay sart yoo xam ne mënta ñàkk ci nga dog li ñuy wax aqabatu nafsi la njëkk mooy ñime téye saw làmmiñ noppi ak ñime xiif xiif bu dugg doomu ak di dundal guddi gi ak di beru léeg di jaamu yàlla ak tudd yàlla tudd gu bari ak fexe ba sa biir sell sëñ bi daan wax ne sëñ mag bi daan wax ne am nañ juróom benn kiiraay yoo xam ni ñooy dog murid yi ñoo tee murid dem ba ca jëkk dafa wax ne qul kasratul akli wa kasratu sharaab summa mulaqaatul baraaya bi istihaab gu bari naan gu bari jaxasoo bu bari wax ju bari nelaw yu bari sàggan ci tudd yàlla nee na yii moom mooy kiiraay yi dog murid yu baree bari moom motax mourid gi amnay melo fofu nak la duggé ci deug deug waxtan wi waye mel waxtu yi moom li ci ëpp dem na melay mourid sadiq la ci jitu moy mu xamné ne ñi muy tuddo ñi muy tuddoo dañoo am ay usul dañu am ay ay ay ponk yo xamné ci lañ tek seen lépp Sëñ Tuubaa wax na ne inna usul al qawmi sab'atun tura athafana bi kulliha rabbul wara al i'tisamu bi kitabillahi wal iqtidaau bi rasulillahi أكل الحلال واجتناب المعصية خامسها كف الأذى فلتكفية سادسها الأداء للحقوق وتوبة من جملة الحقوق nee na gaañi seen mbir fii la tege juróom-ñaari mbir la ngoy ci téereb suñu borom bi tabaraka wa taala ak ngoy ci ak roy ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak di fexe ba li ngay jëfandikoo lépp lew di lekk lu lew moytu ak moy yàlla bañ a lor benn mbindeef mbaa lenn ci kaw suuf bul sëñ Tuubaa bokk na ci aw doxinam mësta rey sax mellantaan juróom benneel bi mooy xaq yi nga ameel ñi nga ko ameel ñëpp nga jox leen ko sa borom am na xaq ci yow yu yoo xam ne am nga ko ci am nga am dox na sa digg ak moom nga jox ko ko ba mat sëkk sa digg ak rasulullahi sa digg ak sëriñ bi sa digg ak say waajur sa digg ak mbokki jullit yi sa digg ak mbokki taalibe yi kenn ku ne xaq yi mu am ci yow nga joxe ko loolu ci cosaani ponk yi nga xam ne ci la ak murit lalu ci la bokk bokk ko juróom-ñaareel mooy saxoo tuub waxtu ne nga yëg ne yow ci càggante nga ne di tuub saxal ko nag boole ci sëñ boo xoon na itam ne mbir mi am nay ponk yu ko téye yoo xam ni boo ci màbb rek màbb nga maanaam mbaar mi dang daay na arkaanuhu naarifu minha sab'a sumtan wa juu'an wa ijtinaabal bidaa wa tawbatan wa saharan wa uzla summa istiqaamatan fa niamat xasla wa zaada sayxuna alyadaali thaamiyan taqwa ilaahi zahiran wa batina mooy tuub ak di dellu ci suñ borom waxtu ne di dundal guddi itam ak di beru di jaamu yàlla léeg-léeg sax ci istiqaama ak di ragal yàlla nag ci lu nëbb ak ci lu feeñ loolu mooy ponki ak murit jikko yi am murid itam sëñ bi leeral nañu ko murid bi am na jikko yoo xam ne mënta ñàkk ci moom moom sëñ bi wax nan ne lu gudd la mooy la tàmbalee wal xaasilu suufiyu aalimun amil sama sëriñ bu baax ba si Abdul Xudoos bu ma saa wax bayit yooyee di wax laysa tasawufa lub sa suufi tarqauhu wala lub sa suufi tarqauhu wala bukaauka yan xannal mugannuuna wala siyaaxun wala raqsun wala tarabun wala tiraabun de wax ne tasawuf foofu ak taalibe bi la koy fire ba tax na fii it mën nañu wax ne kon sëñ bi li mu bëgg wax fii mooy ab taalibe mooy ki xam tey jëfe lam xam te sax ca te du jeng mukk loolu moo koy jural nag mu sell nëx-nëxi xol yépp génn ci moom mu mujj fees dell ak ay xalaat yoo xam ne lépp day jëm ci boromam mu mujj nag dogu ci yàlla rekk ñor ko diinaar ak xandeer yem ci moom kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malia day am jikkoy suuf lu waay buub mën naa xëpp ci kawam waaye boo jëflanteeg moom jikko ju rafet ak mbaax ak ak melo yu sell yu kawe yu mucc ayib nga fay fekk boo jëflanteeg moom rek bëgg ko bu yoree lu muy joxe itam day mel ne ka saxaabi wa ka qatril maa yi fi dilli wa saqi day mel taw bi buy taw du xool kër yi ñay mooy yàlla ak yéefari ñëpp lay tawal mooy am murid la muy def ci lu baax ñëpp la ci yemale du ci xool ki yëg kee sëriñ bi murid yam njëkk a yar daana leen wax ne na ngeen xam ne seen xool yii mi ngi mel ne suuf xalaat yi ngeen di xalaat mi ngi mel ne aw jiw aw jiw la wax nag ne la cay jebbee mooy wax ji ngay wax meññat ma nga xam ne nag moom moo cay mooy mooy meññ ca garab googee ak ca meññat yooyee ak ca euh, gàncax googee mooy jëfi wax ne jëf ju nag am na ndab luñ koy def wax ne aljana ak sawara ñooy ndab yi képp koo xam ni say xalaat yu baax la da lay jural wax ju baax jural la jëf yu baax bu ko defee lépp nag ñu góob ko yóbbu ko ci ndab la ñuy wax aljana bu dee safaan bi itam ñu yóbbu ko safaan ba muy sawara wal iyaasu billahi taala waxtaan yu mënoon naa yem ci ñeent yi sëñ bi wax ne mooy mooy meloy mirul saadex yi sifaatu saadiqil muridi biktisar arba arbaatun nadamtuha khawf fa ixtiraar ba ci jëkk nee na meloy murisaade ba ci jek moy dëggu ci bëgg sab sëriñ ñaareel bi mooy topp ndigalam ak ay terem te bañ di diingat ci lu nëbb ak ci lu feeñ ak li ñuy wax salabul ixtiyaar te mooy li te suufiyanke yi tudde isqaatu tadbir Moy say xala sa lijjën di bop nga baye kok sun borom tabaaraka wa taala di def de nga asbaab di jëflanteeg asbaab yi di jënd ak waaye xam ne yàlla mooy maye loolu lu ci ne bëggoon nañ cee taxaw waaye mel na ne waxtu wi du ko mat bu dee bëgg sab sëriñ loolu mag ñu baax ñi wane nañ ci ay bind yu kawe ñoom Sëñ Tuubaa rek moo doon seen yitte ci lépp sëñ Mbay Jaxate gis nga mu wax ne banaa lépp maa ngi ci sëb ëtt tey faxas naa lu dul yow falang naa ko yit faxas naa lu dul yow ci man mi mu rot Farang na ko yit ba dootul ñewit nga xam ñom dañu seyal seen seen bop ak seen bëgg ci biir sëriñ bi bëggu sëñ bi moy seen bëgg waxi sëñ bi moy seen wax jëfi sëñ bi moy seen jëf melo sëñ bi moy seen melo te sëñ bi xam ngeen ne leppam da ko seyal ci bëggu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy bëggu sun borom tabaraka wa taala waxtu yi mel na ne ah. kon bëgg googi mënta ñàkk la ca topp mooy jëfe ndigalam ndigali sëñ bi mënoon nañ cee wax ne sëñ bi lim digle mooy dëgmal suñ boroom ak di jëf te yàlla tax looy def nga jiital ci yéene fonk xam-xam tey jëfe xam-xam bi fonk tuub fonk jaamu yàlla te jiital ci nag farata yi al istigaalu bil faraidi maan qabla siwaaha waajibun qad waqaa te di ko jullee ca ca ca mbooloo ma eh, te bañ a wàcc sariya tey wéeru ci suñu borom ci lépp te woyofal adduna bañ koo bëgg bañ koo dugal sa fonk nag xiyaamul layli loolu ci murit la bokkoon sëñ bi waxoon na ne adim xiyaamal layli duuna kasali wa bi tilaawati fudula sili am na feneen fu wax ne sax fala tabit ka maytatin fil marqadi bul mel nem néew ci kaw lal bi jugal bu gaa yëpp bu gaa yëpp demee ba ñëpp tëdd nee na bal qum sarian xiina yëhjaul wara loolu ci murit la bokkoon am am wird itam woo xam ni danga koy jëfe te sellal ko te fonk ko te yàlla rek tax ak tudd yàlla gu bari ak jàng alxuraan ak néewi wax ak néewub jaxasoo di ànd ak ñu baax ñi moytu lépp lu xaraam ak lu ñu sipp ak lu lënt ak bàyyi kabaayir yépp ak amee jikko ju rafet toroxlu di joxe sa alal ci yoonu yàlla bañ a def lenn lu naqari doomu aadama bàyyi mbooleem loo xam ni lu amul cosaan ci diina la te mooy la ñu tudde bidaa te yërëm mbindeef yépp ba ci ñii mooy yàlla sax lii lépp lu ci ne waxi sëñ bi la bëgg yonente yépp gëm leen lañu war a gëm ci ñoom lépp nga fas ko bëgg gaa yu baax yépp ak nit yàlla yépp bëgg mbooleem ñi gëm yàlla ak ñu baax ñi ak ñi ragal yàlla gàttal say mébét moytu xeeti rasail yi muy caay-caayi xol yi yu fés yi ak yu nëbbu fonk say waajur am ay teggin teggin mën naa ne mooy ruuxuk ak murit murit bu doon jëmm jëmm ji mooy al maanaam sariya bu tege ci alquran ak sunna waaye ruux gi mooy ak moo ay teggin sirru bi nag mooy ak bëgg bëgg sunu borom bëgg genn la mooy bëgg yàlla ci biir bëgg suñu borom nga bëgg nag rasulullah yi ak ci biir bëgg googu nga bëgg sëriñ bi loolu mënoon nañ ci wax lu bari ci tànqee ko ci waxi sëriñ bi bokk na ci itam yi sëñ bi digle mooy fàggu lu lew fexe ba li ngay jëfandikoo lew sëñ bi da boo dee jëfandikoo lu lewut la ngay jëf yàlla du ci nangu dara boo dugalee ci bu fekkee li ngay jëfandikoo dara lewu ci mënoo jaamu yàlla lu yàlla nangu mënoo jëfit lu yàlla nangu mënoo ñaanit lu yàlla nangu ma itam ci murit la bokk xidma tam lu yaatu la ci biir ak murit yooyu yëpp ay melo la yoo xam ne murit bi war na koo jéem a xam ak li sëñ Basiru daa tudde fahmul musaawaat itam gis naa lu am solo la sëriñ bi murit yam yaroon dafa génne woon ci ñoom beddi konte moo xam kuloo maanaam derub yaram a ko waral wala askan wala métier yépp da ko génne woon ci ñoom danaa wax ne iz akramul ibaadi inda allahi aktaruhum taqwan bil istibaahi bu loolu weesoo tarkul i'tiraadi sëñ bi da koo firee ne mooy at taslim wal istislaam wal inqiyaadu lillahi subhanahu wa taala neen loolu mooy am na fu mu ko ci biir majmua bu mag bi wax ne loolu mooy tarku tarku li'tiraadi ak salabul ixtiyaar murid bi itam faw daa war a roy ca murid ya njëkk ya ndax murid yooye ñooy ña sëriñ bi tërbiyal boppam yar leen def ci ñoom lam bëgg ak nam bëgg ab murid mel moo tax nun luñ bëgg rek am nañ ko ci mag ñi sama mag ju baax day wax ne ما إن نريد نموذجا في خصلة إلا ونلفيها لدى الآباء انظر إلى المبرار سندام عبدكم في نفله بكتاب رب سماي وانظر إلى الندب الجواد مسامب في نفقاته تطرع على الفقراء انظر إلى سندار نياي في زهده في شكره في خوفه برجائي هل من مدان إبرفال في همة عليا وصدق إرادة وسخاء هل أو هل يدانا إبرف أو هل يدانا ibra faati bi ilmihi wa salaatihi wa bi yumnihi wa dakaa'i sëñ mat lamin gay laa yu daana fii tadaati fii tawaaduihi li man yaati min adduafa yi muy dem maanaam jikko joo bëgg rek am na ku ci fës ci biir mag ñi sëñ ma nga ma daaneel ci bi yenn ci meloy mag ñooñu te mooy la ci jiitu mooy ñoom la leen booleeg sëñ bi mooy dàkk ngërëmul suñu borom mag ñi ñu ci bari ba ñuy jébbalu def nañ ay xasida am na ñoo xam ne bu ñuy ziyaar si dañuy def ay xasida waye la wax moy seen yitte moy jëmmi suñ borom sëñ Masamba Kanni buso gis nañ ba jëbul jébbalu xasida gam jébbaloo wax na ne saraftu saraftu saraftu himmati li himmati rijaal wa himmatu rijaali wajhu dhil jalal jëmmi suñ borom mom lañ doon dak ci sëriñ bi sëñ Daaru Asan yaay gis nañ xasida gum doon ziaré wax sëriñ bi ne ko lillahi qad zurtuhu la ghayruhu arabi amna na fu wax ci bir ne ataytuka al yawma dayfan atlubanna rida rabbil baraaya alladi yu'li al maqaamaati ana jëmmi suñu borom mooy seen yitte sëñ ma Lamine Gueye wax na lu mel noonu ci xasida gum doon siyaare sëriñ bi mag ñi wane nañ ay ay ay mawaqif yu kawe yoo xam ni dañ koo desee jàngat dese koo dese koo dégg nga lëñ waaye dara gënu koo kawe ci ay misaal yoo xam ne ci wet yëpp nag bu dee ci jaamu yàlla masalan da ngay xool ñoom waxuma la farata yi waaye xiyaamu layli rek ci misaal liñ ci meloon sëñ sëñ Mamoor Jaara ku ne xam na ne téeméer rakka la daan nafila ci guddi te wax nañ ne alxuraan la ci tari téeméer rakka yi moom sëñ Basiroo ko wax sëñ Doo Abdourahman Lo alxuraan jëpp tari ci ñaari rakka sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moom dafa seey ci bëgg sëriñ bi ba yeneen wet yi xamuñu ko ci moom waaye sëñ Moustapha Diop ci da wax na ne sëñ Modou Xayri Jaxate nettali na ko ne sëñ am Amsatu Jaxate wax na ko ne maam Cheikh Ibrahima Fall kaamil bépp la daa naafila ci fukki rakkaa ci guddi gi guddi gu ne am na ko ñu wax sëñ mën Mansour Diaw wax na ne néegam dafa takkoon genn buum goo xam ni da ko takk ci baatam ngir bu naree nelaw rek buum gi xëcc ko guddi gépp da ko bëggoon di dund dundal sëñ jiiri waa daan sugu loolu lañ nettali ci moom lepp luñ da ci mis bo ñewon ci dekk yi sanci rek da ngay xool yitte ñu ci sanci ay dekk si docteur Khadim sil mu bax mi terem bi mu def gis ngeen wax na ci ne ñeenti téméri dekk murid sanci dañ ko té mag ñako sanjon nak amna na ci ñen ci ndaw ñi xeyna waye mag ñi mom ño sanci lepp mom té lolu du won sax goor ñi rek jigen ñi sax dañ da sanci ay dekk gis nañ soxna momi sanci dekk bu ñu wax madina ci wetu touba belal ba ñëwoon ci fàgg lu lew gis nga niñ ci mel xidma gis nga niñ ci mel maam Cheikh Anta yitte jëm def ci euh, muul téere sëriñ bi yitte ju kawe la Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ teenu aynu bii liñ ko yiñ ciy nettali ci yitte ju kawe jum ca fësal ba teen bi bënn ca jamono yooyee ak ku mel ne sëñ ma numbe Mbàkke yitte ji mu amoon ci liggéeyal sëriñ bi di yitte ju kawe yoo xam ne mënoon nañ ci joxe misaal waaye nag ñoom damay wax ne sëñ bi rek lañ daal liggéeyal ak suñu borom tabaaraka taala waaye duñ liggéeyal ku may suñu borom moom man duñ sonnal coono bu jëmul ci suñu borom am na ku ñuy wax sañ Basiiru Siise ndar ma ca ndar biñ ko bëggee bind soldaar dafa bind lettre sëriñ bi def ci benn aaya rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'uunani ilayhi maanaam bëggut a dem daal waaye diir bu gàtt lañ ca teg mu noppalu jot a dem soldaar keroog bañ ko dencee sëriñ bi dafa wax ne ñoom moom day kenn ku ne aaje woon a ku la maanaam ku la tinu mbaa ku la dimbali foofee ba mu des moom fa mu fa mu tëdd ñépp yéemu ci mu ne am na lu gën a yéemu loolu malaaka mii laaj bi mu ñëwee ne ko man rabbuka dane ko waaw ndax hal taarifuuna antum rabban ghayra allahi hatta tasalu anhu yena xamne benen bur bu yalla da am ben laaj neena malaika yi ne picc daw non lañ meloon ci joxe addiya non lañ meloon ci xam-xam gis na seigne Mbàkke Buso ñaar fukki xam-xam ak nangam daana ci wax yu bokkut te géeju ca te lam waxon ba legi si xam-xam dindi wuko téeréem yim bind rek firdel la xam xam amanul balidi min khatari taqlid ak rasmun fi fanni rasmil mushaf ak yenen ak yenen risalatun fi ilmil faraid ak ter yu bari yo xam bin nako ba ci maam Cheikh mi mo wax jazbul murid bobu ter bu am solo la bo xam mam maam Cheikh ibrahim Fall moko bin ak seigne mat nga xam alquran jep da tafsir ci ci ci wolof seigne Mamar Sey lampum jamur. gis nañ téré bu am solo bi bind kitaabu tamyiz bayna al wal batin. té mag ñi li li ci seen melo moy dañoo dëgg woon dañoo dëgg woon te amuñu won dégg nga lenn lu ragal ak kenn ku ñuy bàyyi xel kuma yalla ci seen lepp alquran karim bo doxon bo bo xol ni ni seen dig ak mom da nga japp ni ñom alquran rek lañ fi nekkalon da nga gis ko xamni gis nañ ci ñom ku bind juróom ben fukki kamil ak ñet muy seigne mbacke Kandi Buso am ñu bind juróom ben fuk am ñu bind ñeen fuk muy seigne Aliou sek wanar am ñu bind fanweri kamil ak ñet te lepp seigne lañ ko bindal bu ñëwee ci dajale waxi sëriñ bi nga xam ne moom borom penc mii sëñ Maxtaar Bintaloo ak mbokkam ma sëñ moor pend gis ngeen diiwaan yiñ ci dajale nga xam ne ba léegi yooyu rek doyoon na ak murit yooyu yooyu rek doy na sëkk ak murit ak taalibe bu sëñ bi bindaatutoon leneen ñaari diiwaan yooyu rek doy nañ sëkk boo ci yokkee nag diiwaanu Baye Sëriñ Sill bi ak sëñ ma Bàññi Njaay ak sëñ ma Lamin Jóob liggéey bu réy bi mu ci def ci mboorum sëriñ bi ak yeneen ak bu ñëwee ci woote jëme ci lislaam itam dañ ci amoon mën xëj bu leer sëñ Moussa Ka dafa wax ne lu ma la wax ci alxuraan laa ko laa tuxale wala xadis wala ci daam laa ko jële mën bu leer boo xam ne tey maanaam doy na sëkk jarut di faggu di wuti leneen lu ma la wax ci alxuraan laa ko jële wala xadis wala ci daam laa tuxale yooyu daa day daa may sëkk bu ñëwoon ci jikko ju rafet mën na cee wax ku mel ne sëñ Ahmadou Bousso mu sëñ Bousso bi nga xam ne dañ ko da dañ dañuy wax ne meram kenn mënu koo gis ci moom bu ñu ko laajee lu tax day wax ne man damaa gisut ci àdduna lu jara mer am na ku ñuy wax sëñ Mahmoud Mbegare sëñ bi mas na ko yebal mu yor jësi di ko ngànnaayoo ay gars yi dogale ko bëggoon a nangu alal jum yor mu ñu jëflanteeg moom la leen soob ci moom ba dem te génnewul jësi ji ba mu ñëwee ñu laaj ko waaw lu tee nga jëfandikoo jësi ji mu leen damaa merut boo meroon génne ko loolu yu mel noonu mënoon na cee nettali yu bare bare bare bari sëñ Aliou Seck wanaan wax nañ dara wax ne murit boo xam ni ñëw nga am nga dal ku dem it am bàyyi nga fi ku lay ñaanal foofu lañ nekkoon bu ñëwee ci ragal yàlla ak dëggu gis nañ ku mel ne maam si Anta lettre boo xam ne ñëpp gis nañ ko mu wax ndigali suñu borom yeeg ngooy ci alxuraan ak sunu yonte bi ku ko defut faqad tabarratu minhu zahiran wa batinan maa yow séqunub dara nga xam ne noonu foofu lañ nekkoon ak seeni taalibe bu dee ci toroxlu gis nañ ku mel ne sëñ bay jaxate wax ne fee jant bay fenke ak fee muy xaloo sowe ji yilif ko ak laxasu yalwaani laa yemale bu dee iisaar noonu lañ ci meloon gis nañ ku mel ñu wax sëñ moor njaay tàngaar wax nañ ne sëñ bi ci mas na ko wax ne ko yaag saa jende suñu borom xamal na ma ne dana am ko ci xam ne dana jël ay bëtam mooy dana ko nattoo ngumba mu ne ko suñ bi dee maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma sa boroom mu teg ma ko ndax Isa daa am liggéey bu muy liggéey ci biir ak njabootam te liggéey boobu mënta ñàkk na ma ko teg wax ne ne ci at moomee la bët ya muuru ba ni fi jóge gisaatul loolu mooy isaar ànd ak nag sajaa ànd ak dégg nga njàmbaar gu mat sëkk gis nañ sëñ Mor Maane ak sëñ Aliou Diouf Lambaay ak sëñ Babacar cargaan euh, lañ tontu woon buur ba ku ne xam ne loolu ak njàmbaar la ànd ak dëddu àdduna itam boroom borom daarul moxti mas nañ koo tabaxal liggéey boo xam ne mbool dañ caa sonn lool ab néegu ñax waaye nag ñu tabax suuf si ba mu ñëwee di ko seet si da leen wax ne néeg bi de mucc na ayib lool waaye tabax bii rek moo ko yàq ndax àdduna tabax xaju fi foofu yi lañ nekkoon nekkoon ñu sàmm waaye boolewuñu ci woon par parloo bëgg seenub sëriñ bi sëriñ bi génnee bi sëriñ bi ñibbee delloo fa suñu borom gis nañ coono yi jànkonteel ci kenn ku ne yittee mooy ñëw Tuubaa waaye mënuñoo tiim sëriñ bi itam sëñ Mansour Diaw am na xasida gu neex gu muy wax ne ab kii ala bu'di Tuubaa daari qudwatina qutbil kiraami habibi malikillaahi kon murit bi itam faw mu rey ci mag ñooñu faw mu xam ne ñooñee ñooy murit ya dëgg-dëgg yitteem di roy ci ñooñee foofee nag lay dëkke dëkk bi ñuy wax tuuba Touba dafa am zahir am baatin kaw gi moom suñu kalaas gi ñoo fi ne di def yu leen neex waaye baatinu Touba nag du ñëpp fay dëkk mooy la suñu borom ci alquran ne alladina amanu wa amilu salihati tuuba lahum sayiduna abdullahi ibnu amr ibnu aas dafa mas a laaj neen damaa mas a toog fa yonente bi booba ndaw la yonente bi wax ne tuuba lil xuraba nee na am ku ko laaj ne ko ñan ñooy alxuraba wu mooy ñi ñi moom tuuba waa tuuba mooy ñan nee na mu ne ko unaasun saalihuuna fii unaasi suuin kathirin man yaasihim aktharu min man yutiuhum nit ñu baax la doon nekk ci biir mbooloo moo xam ne ñu sàggan la doon nag moo tax nit ki xam ne daa sàmmonte ak mbaax mo xam wet na wét la wétaliku la mo xam aduna sépp yakku na itam nga nek ci la fi sëñ bi bàyyi won ngoy ci te bañ ci deglu kenn baña a kokay moy am murid as sadiq yalla yalla bolé bolé ci ñooñee ma ngi jéglu bax ci guddal gi alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Ahmadou ci waxtan wu am solo jot wi nga xamne yaakar yaakaar naa ne mbooloo mépp teewlu nañ ko tayet kenn ku ci na ne jariñu nga ci bu baax a baax euh duñu fi nekk diko jema jéem ndax tënkaat ko xeyna na ak lëndëmal la wala ak lentel waye waaye danañ junj rek ci yu gàtt yenn ak ci ay topp وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فنيتني بذي الكبار والكسل وجدني منك بما بي غزل